Euh, on a eu euh, le, le le cas de Mademba hmm. euh, moo xam ne moom il s'est retrouvé aussi un peu dans la même situation nekk PCA ñaari structure yoo xam ne hmm. ginnaaw bi mu jiitee lii la euh, en en fait cohabitation boobu noonu hmm. y de bonne ou de mauvaise soit en tout cas mais yana en a ñu leen ko reprocher sama avis personnel du compter mais yow par rapport a ces reproches là. Mhm. ban réponse nga ci mën a indi. Euh, bon vous me retournez sur un boo xam ne foogoon naa vidéo naa ko parce que quand bi ñu ma nommé conseil boobu yàgg na. Mhm. te ñu ci waroon wax yépp 2022 euh, octobre foogoon naa loolu boobu féete na boor parce que la première réponse c'est quand même euh, euh, je réponds à ces gens-là par le silence pour une raison toute simple. Mhm. gis nga ku ñu yar ak ku ñu yarul mënuñu bokk discours mënuñu aussi bokk benn làng bi loolu moo tax am na ñoo xam ne seeni langue la ñu nekk ils récitent ce qu'ils savent réciter li ñuy nàmp la ñuy wax waaye man aussi j'ai le devoir wax man li ma nàmp li ma nàmp mooy gis nga Kajoor Siise mi ma yoroon à l'ISEC mu nekkoon moo étudiant en journalisme il a fait le choix d'être journaliste. Il aurait pu faire le choix de faire gestion des ressources humaines. Absolument. ou entrepreneuriat et cetera. gis nga choix boobu dama koy respecter par discipline et par respect à la personne que vous êtes. j'ai été secrétaire général d'une grande organisation. et je crois que j'ai apporté quelque chose à cette organisation. demandez au monde du travail et tout à l'heure on a introduit par ça. je le seul secretaire général du SAEMS élu à l'unanimité j'allais dire réélu à l'unanimité parce que tous les prédécesseurs sont passés par des élections li taxoon ñu réélire ma 2019 à l'unanimité c'est le travail que j'ai fait et mon bilan de 2019 à 2022 dépasse de loin celui de 2016 à 2022 2016 2019 loolu la yàlla dogal mhm. waaye loolu nag bu ma ci paree ci syndicat ne leen texte yi nee nañ deux mandats fait deux mandats c'est terminé mais bu ma terminé j'ai pas la liberté moi ah si je suis totalement libre rawatina nag ma am chance bu ñu bëri amul le président Macky Sall c'est pas n'importe qui c'est le premier des Sénégalais en tant que chef de l'exécutif waaw kooku bu ma amee chance ma pare mu nee ma yow de liggéey bi nga def fële gis naa ko rafet na dama bëgg nga ñëw sama wet waaw du ma sant yàlla rien de ma dem foofu ci wetam pour Sénégal et les Sénégalais et l'enseignement kon loolu mhm. kon loolu ku ma ko reproché mhm. lenn rek la euh. ñaari mbir moo am pouvoir en politique pouvoir ak opposition c'est que da nga wax doon opposition rek. nekkoon di préparer terrain bi di di di liggéey euh. Euh, bi ngay nekk syndicalisme en même temps bi ngay nekk syndicaliste en même temps di liggéey ci suuf. mais si vous êtes un très bon journaliste vous n'avez pas me posé la question pour raison toute simple. pour raison toute simple. <laughs> non non non non je vous dis xam nga les syndicats. ils sont toujours. avec la presse li ñuy def yëpp xam nañ ko tout à l'heure il a tracé mon parcours depuis Diourbel kon moom suivre na ma ci moment yooyu bu dee dëgg rek moo neex yàlla bu ma jëngoon d'un iota vers le gouvernement ou vers l'opposition mais la presse responsable de mon pays allait me le me le notifier et les enseignants ñi nga xam ne ñoom laa jiite mais ils allaient me le dire